même léegi pour ñuy dugg ci enceinte bi léegi dafa am désormais benn heure bu ngeen fixé au-delà de 17 heures kenn dootul duggati ci enceinte bi di def seeni cumukaay mais les lutteurs on les par rapport ak désormais yan disposition ngeen jël pour un respect strict de dispositions yi nga xamante ne désormais arrêté ngeen ko avec toutes les composantes la mise en pratique xam nga euh, ay règles moom dañ ko def pour nit ñu respecter ko waaye am na ñoo xam ne aussi dañoo jóg pour contourner ko. xam nga les sanctions financières gars yi ragal ragaluñu ko. waaw mais ñun aussi ça ne nous arrange même pas loolu sax bëgguñu ko parce que daf ñuy indil ay woy yoo xam ne xaalis fu muy dugg nangam et cetera alors que. mais on a vu ce que a mené aussi. préparation xam nga dañ ne sport la ñu wax dañu pour sport quand bien même làmb li ci ëpp doole culture aspect culturel la mais dafa am nag fu ñu koy limité dorénavant. heure de convocation da nga boo ñëwee aussi à 17h la ñu war a siffler le premier combat bu jotee kenn dootul dugg ci digg géew xam nga mbër day dugg ñëw indi ci mukaayam ci biir jàgg fa def ay. ak yu dul jeex bu xaaj. Ah, loolu maintenant désormais c'est deux bouteilles. maintenant non non non c'est-à-dire que maintenant sa heure dugg ak ak yi ci digg géew gi. d'accord maintenant le règlement dit que euh, l'appel de l'arbitre mbër mi dafa war a ñëw torse nu pieds nus prêt à combattre. léegi loolu lañ leen wax léegi maintenant bu ñu la ooyee yow boo duggee boo duggee sax 16 heures bu la nekk commencé di sangu say sangu yooyu maintenant bu arbitre ootee tu viens là avec deux bouteilles tu as au maximum 5 minutes. tuuroo ko def say sengoor ak yooyu yëpp. pare est-ce que loolu tam tegu leen ko pour dagg xaalisu mbëri. non même yéen xam ngeen ni làmb baaxoo. attends attends te est di nga jël benn Modou Lo tey bëgg ko exiger ay conditions yu mel noonu. mais bien sûr c'est un athlète comme tout le président lamb am na lu mu xam nga. maintenant ku ko jalgati parce que les lutteurs on les connaît. ku ko jalgati am na am na donc ils sont très récalcitrants ci yenn yi. justement mais a. qu'est-ce pour cela dañ ne. yaa circulaire boo xam ne génne woon nañ que. c'est que yéen suspendre ngeen fi baalaat fi aussi euh, président. waaw waaw tout à fait mais loolu ànd sax le monde va ainsi waaw gisoo chaque fois am lu kii ñu gracier ñii dem lii aussi bu fekkee jot na waa ji amande bind demande grâce ça existe dans tous les sports du monde. demander grâce étudier grâce bi mu mérite mu ñu grâce ñu gracier ko maintenant le le réglement il est général vraiment c'est pas particulier man may diw fee laa toll kee fee laa toll non ki bëri à cent mille ak ki bëri cent cinquante mille ñoo yem ci règlement bi maintenant bu fekkee ne ñëw nga nga def loo xam ne waroo ko woon a def règlement ba defe ne su fekkee ne les vingt premières minutes jeex na bu ñu duggee ci beneen tranche bi là c'est la suspension d'office xam nga loolu amul sax ñu lay entendre c'est-à-dire c'est suspendu d'office nga dem sa nga dem toog fële au moins tu auras un an plus donc loolu aussi mbëri xam nañ ko te am na ñoo xam ñëwoon nañ mais dañoo daw si ñëw def ko ba ñu waxee ne mbëri dugg ci géew gi mais am na mbëri ñëw dañoo directement ñëw dugg bëre dem seen ci mukaay moi je crois qu'on s'est entendu sur ça mm-hmm. oo nañ promoteur oo nañ acteurs yi oo nañ les managers oo nañ également les présidents d'écurie wax ak ñoom te évidemment même les managers yi engagé bëri sax ñoom ñoo ci gën a sawar ça les arrange pas nga indi sa mbër mu nekk parce que peut-être Euh, am na ko nekk kër ga moo ko wax ne bul teel a xaaral mhm. di wëg yooyu alors que c'est lui si manager moo la mhm. engagé c'est lui a mhm. la dugal nga ne du ma dugg. te manager demul ci sëriñ. alors loolu non non non. mbër mi tamit. non xam nga le manager xam nga <laughs> xam nga contrat dafa am loo xam ne ku nekk moo ko moom pàccam. manager entraîneur day entraîné mbër mi. manager gis ne kii pare na mu utal ko combat. seen jo ko kaay la ngeen signé le manager il est managé par écurie accréditation la am. bu ñëwee bu signé. Mhm. promoteur bi signé CNG signé. et doit se tenir koy respecté scrupuleusement amul leneen maintenant mbër mi su nekkee dafay jalgati règlement mooy dal ci kaw pas le CNG c'est le règlement mooy dal ci kaw vraiment ñu sanctionné maintenant xam nga dafa sanction administrative et sanction financière loolu aussi dafa c'est c'est général. Mhm. dans le nest pas qui nest pas le sport mondial. amul naan kii lii la wala diw defu ko wala et cetera non non non football nañ fii la vous avez ay laser ak yooyu yooyu mais on nous a on a sanctionné n'est-ce pas le Sénégal par rapport à la même manière aussi suy wàccee ci suuf mbër mu def loxo xam waroo ko def aussi sanction bi day ñëw on ne peut pas les mais on est obligé parfois de le faire parce que tout simplement làmb dafa war a dox. d'accord maintenant par rapport ak géew bi. Mhm. parce que li ñu war a wax aussi dañ koy dañ koy def fast track. Mhm, mhm. par rapport ak gestion désormais géew bi. les accompagnements. loolu pour cette nouvelle saison lan ngeen ci nar a def parce que ñi ngi jëm ci ay affiches yu mag. même par rapport ak bëri bi sax pour mu gën a bëri gis nañ quelqu'un comme Makan taxawal na aussi benn. benn benn claf et c'est quelque chose boo xamante ne ñi ngi koy ñi ngi ñi ngi koy saluer. Mm-hmm. surtout pour ñi nga xamante ne moom mooy mbër yu mbëri yu xaw a yem yi. espoir alors euh, par rapport ak organisation boobu. Mm-hmm. lan lañ ciy def parce que il faut ñu wax désormais aussi ci gestion arène bi. Mm-hmm. sa tableau bi yow tamit. président wax nañu tableau bi toujours en panne groupe électrogène bi ak aussi siège yi nga xamante ne jeunes yi dañ koy jël di ko di ko sànni cette violence là il faut il faut il faut qu'on en parle. mais parlons-en xam nga aussi Sénégal suñu réew du ñoo ko moom y a des phénomènes de société yaa ngi xamante de société dafay ñëw ba glisser ba yegg ci beneen champ mais nañu reconnaître également que ni il y a un recul de la violence dans notre sport ça il faut di doon am mu wàññeeku na bu baax a baax. recul ah président temps ay manifestation gars yi booy di jël siège yi di ko di ko dëjëti di ko di ko sànni. yoo xam ne yàlla l'érosion xam nga aussi yéen ñëwu leen arène bi dugg nga fa mais bu baax am na érosion bi dafa yàq feer yenn feer ñu dañ est-ce xam nga ne pour xale jël benn chaise dëjëti ko sànni ko c'est pas facile ñun am na proposition bi ñu defoon. parce que am na yoo xam ne am na érosion bi laal na leen am na yoo ne tàngoor bi laal na euh, euh, comment ça boulon yi ba nga xam ne dañoo bàyyi euh, matière bi alors chaises yi décollé dañ yooyu yëpp waxoon nañ proposé waxoon bindoon nañ une une lettre mais su ko mun na dindi. au pour ñu peinture ko vert jaune rouge. merci léegi loolu fu ngeen ci toll. waaw loolu ñu ngi koy suivre parce que relancé nañ ko semaine passée xëy na fa balaa ñuy démarrer la nouvelle dañ ci am benn benn benn benn solution. Euh, tableau d'affichage bi dara jotu ko feebarul sojul. c'est quoi le problème. non non non xam nga y a un groupe électrogène boo xam ne mun na alimenter arène bi yëpp boobu boo ko taalee mu taal xam nga rek euh, euh, tableau d'affichage bi rek li muy jël ci courant moo ëpp li projecteurs yëpp di jël ko di jël ci courant ci arène bi ak lampe yëpp. léegi c'est quoi la solution. nee naa on met du gasoil ci biir groupe bi tableau bi ak lampe yëpp tàkk. donc loolu le promoteur wax nañ ne promoteur dorénavant dañuy jënd. gasoil def ci groupe bi alors je vais rappeler également que ne arène bi duñ ko luyee da ñëw tëgg dem sa yoon. c'est gratuit. c'est gratuit là c'est gratuit donc. pour pour les promoteurs. donc ngay ñëw def gasoil lépp tàkk nga am li nga bëgg je crois que ça c'est minimum c'est un minimum. Euh, loolu aussi euh, yenn yi ay entretien la laaj. pour mhm. arène nationale bi mais très honnêtement je dis que muy sono bi. muy euh, écran bi lépp a ngi dox. et pour la VAR désormais. éclairage bi naka ngeen koy defee. bon éclairage bi déggoo li ñu wax. c'est-à-dire que parfois. Mhm. Euh, bu fekkee ne taaluloo groupe bi am lamp yoo duñ tàkk boo boo boo boo taalee lamp yu bari ki tension bi dafay kii bi lamp yi mën na fay c'est que loolu moo ñu da arrivé nañu je crois deux fois mais ñëw da ngay jënd gazon def ci groupe bi su doog bay war a taal lamp yi ñu taal groupe bi comme ça mu alimenté. le temps que ñu régler euh, ce problème interne là. et la VAR que national allez introduire. maintenant on a oui. Dakar peut-être arène nationale du poser problème. Mhm. peut-être. Mhm. parce que aussi VAR aussi. Mhm. yàgg nañ ko expérimenter mais pas ci lutte avec frappe. on le voit ci tournoi CEDEAO yeeg yooyu loolu. CNG tàmm na ko utiliser mais cette fois-ci naka ngeen koy désormais adapté à Dakar mais aussi dans les autres régions parce qu'on lutte aussi dans les autres régions. waaw. le plus dans les autres régions mais xam nga VAR mooy. il paraît que c'est Fatick qui arrive en tête nest euh, xam nga VAR du dara assistance vidéo la à l'arbitrage daf lay yàgg nañ koy def jële di dit quelque part man ak ñun depuis ay deux mille cinq deux mille six ñu ngi koy def mm-hmm. Mm-hmm. même euh, ñun am na suñu caméra bopp parce que y a CNG TV aussi hein mais bu ñu ko defee mun nañ jël kooku mu toog ak un arbitre s'il y a lieu mu oo arbitre bi mu oo ko ne kaay nga xool mu xool image yu ñu ko nee ne effectivement euh, chute bi euh, valable na wala valable wala war nañu xoolaal reconsidérer sa décision moom mu ne d'accord et cetera mais le dernier mot revient toujours au juge central su ko neexee bu dëgëraat dem ci kon la première décision su ko neexee suñu infirmé donc loolu c' pas c' pas très compliqué c' est à duñ toog di xalaat ne par dañu un grand studio def ci ay non non non am na wax ne instant nit ñi li ñuy wax ñuy adapté wu. nit ñi di adapté wu c' est pas très compliqué vaar bi tur bi tur boobu la ñu wax rek mais yàgg na jëm à lu simple da ngeen di bëri léegi ñu ne yaa daanu yëkkati loxo kële nga ne non non daanu ñoo dafa def recours. Mm-hmm. lu ñuy def ñu ñu xool vidéo yi. te yow boobu boo defee sa recours yaa individu bu la neex on se soulève na ci nga nga wane ñu xool dal di àtte de la ma manière on va on va on va le faire on va aller petit à petit pour les grands combats dañ koy bëgg di def en attendant que vraiment ñu réunir tout les conditions ñu doog a nest pas pour tous les combats.